مولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين فإن هذه الليلة الغراء مخصصة بسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله سوف ندعوه بأحب أسمائه قلنا يا رسول الله ولدت في مكة المكرمة وأنت خير مولود فيها ودفنت في مدينتك المنورة وأنت خير مدفون فيها وفي غيرها من عواصم العالم ولدت في خير بلد ودفنت في خير بلد وبينهما خير ما للنبوة والرسالة من أسد وبينهما من أسباب العز والكرامة ما جعل الإنسان يحيا في الأرض وذكره في السماء يا رسول الله جعلت حياتك مثالا لكل من السلف والخلف الخلف فيها مأمون والسلف فيها ميمون وأعطيت لكل فرد من أفراد الجنس البشرية حقه في الله وحق الله فيه وبهذا قدمت الروح أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب فيل المنيرو bokki jullit yi fi teew ak fu kaddu gi yegg ñi ngi boole ñépp nuyoo ci nuyu lislaam di jéggalu ci retard bi waxtu dafa xat ba nuyoog jaas yi boo ci daggul waxtu wa dagg la nuyoo bii ñu nuyoo ak ziyaara bi nuyoo sunu sëriñ bii toog la ku baax kii te yiw Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Hadji Mansour mu Cheikh Al Hadj Malick nuyu kilifa yi mu àndanteel ak kilifa yin fi fekk nuyu waa waagu ñaay ak waa HLM ak fu ñu mën a bàyyeekoo ci mboolem couche peuple bi bàyyiwuñ ci kenn gàmmu gi bañ ko yëkkatee dañ ko jombali ñëpp jagleel ko ki jagoo gàmm bu di sayyiduna Muhammad moom képp moom ngay toog ci biir nit ñi ni leen moo gën seen bàyyi ñu kontaan ci moom képp moom ngay toog ci biir jullit yi ni leen kii may wax moo gën seen bàyyi ñu kontaan ca ba làmb seen poche jox la keneen koo fi ni moo gën seen bàyyi am nañ ca duut wax ji dootul gudd bari na lu may wax naan wax jeex na tàkk waxin rek moo fi des te làmbi wax kenn dootu ko ub làmbi wax ku gàtt xel ba defe ni mën nga ko ub xamatoo dara ci bind waxkat yi wax na ba noppi muy yàlla kam doon wax loo wax na ba noppi lam bi wax tëj na kenn dootu ko ub am am rek a fi des diw jële na ci diw diw jële na ci diw nett li waxi jaambur Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh ni jarul réel kaala soxlawul su ma nee maa ngi nuyu kilifa yi maa ngi ci namm ñëpp nekk nit doy na kilifteef nekk nit doy na kilif kilif xamuloo ni xéewal yi bi ci gën mooy xel muy teey waa xel muy teey bay wàccu moo gën ci xéewal yi waaw ku sa xel di teey dafa fekk ngay nit dof du wàccu bu doon wàccu doo añ ba noppi tuur ci poofel bi mu ñëw di ca añi kon xéewalug nit mooy tax ngay wàccu dof du wàccu di ku ci mës a romb dof buy wàccu na ma wax nit rek lay wàccu moo tax xel muy teey xéewal la xéewal la de mënoon ngaa nekk nit doo gëm diine te ku gëmul diine sa mbaax wérul mbaaxu ku gëmul diine wérul su nit mënoon a am mbaaxu boppam diine génn ci diine du ñëw lii tax a baax lépp sa xel mënu la ko tax a xalaat li bon lépp sa xel mënu ko xalaat yàllaa na naan lii baax na nga def ko mu ne la lii bon na nga bàyyi ko moo tax benn waaye dem na ci benn borom xam-xam ni ko dama bëgg nga démontrer ma julli lan lay jëriñ ci nit waa ji ne ko mën naa la ko wax waaye soxlawul boo feebaree dem ci médecin bu dee sëqatal teel ko ni lànk naa bu dee sëqatal nga sëqat bu dee dugal ci duus bi indi ma gaanu waaye nga def mu ne tëfli nga tëfli mu ne téenal nga téen nangoo ko médecin bi gàntul ko yàlla mi la bindoon médecin bi la ni sëqatal nga sëqat bu la yàlla ne julli da nga war a dem julli ji diine rek a mën a defar nit moo tax mbaax gu diine bokkul wérul am yi ba mu jeex am yàlla képp a ciy jëriñ li ëpp ci conscience su jamono nag gëm nañu ne ku la ëpp xaalis moo la gën moo tax léegi si kuy dund booy boo def attention noo ngi dund ci adduna boo xam ni loo mën a mën a mën a tooñ te yor xaalis boo la yooyee loo jub jub jub te doo tooñ te yoroo dërëm boo demee fa ñu atte ñu duma la boobu jamono ku ciy dund war ngaa teey moo tax attekat yi ñoo am problème attekat yi ñoo am problème attekat yi ñoo am problème ku am xol di bëgg di bañ ñu ne la yoral maanu te baskil xam nga baskil xam nga teg baskil te da nga am xol moo tax ku ñu dénk àtte jox nañ la paaka benn ngay rendi bis bu nekk wala nga rendi sa bopp wala ngay rendi di rendi ba dem safara alaysa allahu bi axkami alxaakimin xanaa bi yàlla dana àtte àttekat yi ëllëg te billahi fa ma fi lwujudi taatun wala isyaanun wala ribxun wala jawhar wala laylun بياض ولا سواد ولا بر ولا بحر ولا شيء ولا غير شيء من هذه المتضادة إلا بقبضة الله ويده طب مي لروي لوي لنجس لنوي قدي بشر لنيول lu weex géej jéeri lii lépp ku defee ni am na benn millimètre bu ci yàlla contrôlé wul réere nga yàlla te billaahi waxuma dund ba déwén waaye dox ba ci cinéma bi te amuloo gàcce war ngaa wax ni alhamdulilahi rabbil alamin dox jéego te toroxoo yàllaa ci jàpp nan delloo sunu bopp yàlla moom képp moo mënoon a faj soxla yi nit ñi kenn ku ne mu jox la la nga soxla lépp te defu ko moo tax ku fi dund war nga seetluwaat xamuloo ni kenn taxaw ñëpp joxoñ ko ni ko yow kenn la yàlla doo nga ko jagoo woon te may ko boppam waaw lu yàlla xañ boppam nu ko nit di bëggeeti moo tax sunu góor bu baax ga sidil xaaji mansour radiallahu anhu takkal nañ ko fas mu jëm barab roof tànk bi ci bëñ teg bi ñal ngu fas wi dégg ko wax baat bu safaanoo mu àbb xalima def ñaari way ca kaw ca kaw fas wa ñaari way yi mat na déglu bu ko matee ma wax ko bu ko mat ma tëb ko góor gi dafa tàkk ci fas wi dégg ku wax kàddu bu ñaaw jëm ci barab mu ne ah imal li nafsika saalixan laa taxtafil bi zuhuri qiilin fi lanaami wa xaali falxalqu laa yurja ijtimaau qulubihim laa budda min musin alayka wa xaali nekk koy bu am fulla dem jëfal sa lu baax sa bopp te bañ a déglu diw nee na ak diw nee na ndax nit ñi kenn mënul canaliser seen xol yi ci benn barab fokk ñii di la xas ñii di la xus ñii dañu lay gëm ñi weddi la waaye ku dugg ci mbooloo ñuy téeméer juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent yëpp bëgg la kenn ku lay ngóobeek ngelaju boo ko geesootee doo nit def ko muy asaka nga noppalu danga koy def asaka rek noppalu nan yaakaaraat yàlla luñ fi mas a yaakaar tas na kuñ fi mas a yaakaar tudd yàlla tas na dafa am benn nit ñëpp sopp ko wóolu ko yaakaar ko lu mu mas a ñaan mu nangu mu xëy dëkk ba mu dëkk maral dangootu la taw ñu seeti ko jox ko hadiya yu woom ni ko dañoo bëgg nga wax ak yàlla mu taw mu ne ban heure ngeen ko bëggee ban heure ngeen ko bëggee ñu ne ko ba tawoon ci timis ba fajar dara lu gënal kenn du tawte ndax day fekk ñëpp tëdd mu ne kon daañ ko dooree ci timis gi ba fajar ci luñ la daan may rek de digge ci poosu jàmbur ak wóore ji boo cee ak nag mu ne joxew ma tey nag timis jot góor gi jàpp tur ya amoon li jaaba ca moom yépp bu mu woo rek asamaan si xiinul sax xambaarul melaxul waxuma ak di dand muy ñaan di ñaan ba ñu nodd fajar gisuñu sax njayaxaan mu ne bu bët setee di ci nii ba faf toxu bu bët setee ci nii damay toxu rek ndeke surgaam bi koy may ndox ci satalaam moo gën a kawe góor gi ci yàlla te góor gi yëgu ko bi surga bi dawalee bëtam gis ko mu ne sagg sagiiral ndax ku digge loo mënul sëgg cay mujj surga bi ñëw ni ko soo ma mayee ndigal ma beesal njàpp ñaan la la sa borom nga bañ a am gàcce mu ne ko loolu soxlawul ndigal ku ko def ma jël soxlawul ndigal koo def rek mu jël téere yi nee ñu surga ba sax benn tànk ba dafa lafañ mu jàpp kabar julli ñaar rakka sëlmal tàllal benn loxo bi bi ci des jógagul xiin ba ca soow xiin ba ca penku kajoor ak bawal gëndoo mu ñuul kukk ñi li nga am mu daaneel xiin wa fàq sotti ku bay taw kilifa ga ni ñox ket summi garaam bu ba ni ko xëpp summi mbaxane ba ni ko xëpp ni ko def naa la guide spirituel bis naka tey yaay jiitu ma topp ci yow mi dox sama diggante gàcc gi mu ni ko ëpp naa def njiit yàllaa koy def xanaa xamoo ni bis bu ne nit jiite ku la sut waaye yàlla la soob am na ñoo xam ni daf leen séddi xaalis ñuy joxe am ñu mu séddi xam-xam ñuy jàngale am ñu mu jox éloquence soo waxee ñu dégg am ñoo xam ni dañuy yàcc jéemu ñu dara dañuy seetaan foo denc ñu seet ba xaaju guddi ñu topp la am ñoo xam ni rek li ñuy liggéey mooy ŋàññi nit ñëpp moo bi diw daal alalam ji billaahi du ko sàcc wër naan diw dafa sàcc diw dafa sàcc waaw te nga sàcc bopp mu nga jiitul yow la yàlla jiital naa la topp yàllaa ma toftal ci yow te dinaa di wax ni borom cër yi defuñu dara ki séddalee def lépp borom cër yi defuñu dara ki séddalee def lépp ki séddale moo def lépp parce que laa dem ci benn ngénte dégg ñu benn waaye bu rëy gémmiñ jóg taxaw naan yàlla de am na lum tëli naan ko ay diw loola lu mu mu ne séddale la mënul ma wax ko moom ñëw ma ne ko waxal astafirullah yàlla séddalewul day maye lim yore loo ci yeeyoo mu ni ma dara ma ne ko lu ci sa bàyyi moom mu ni ma dara ma ne ko lu ci sa nijaay moom mu ni ma dara ma ne ko boomoo ci côté paternel moomoo ci côté maternel nan nañ ma sédd loo jox cër mu ni ma ma ci cër mu ne ko yàlla séddalewul day maye ku ko neex mu jox la ku ko naqari mu xañ la tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alxayru innaka ala kulli shayin qadirun bokk na ci lim man tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyli wa tuxriju alxaya min almayiti wa tuxriju almayita min alxayi wa tarzuqu man tasha bi gayri xisaab
في ملكه ما يشاء تعالى الإله جل العتم فما إن يقال لماذا فعل
waa ji ñaan na taw na teqali ko wuñu foofu xam nga ñoom ñaar ñëpp lu leen tax a baax ndeke lu la yomb lu ne mën na laa jey góor gi nanguk ñaana ko jey ba mu jige taw te moomul taw waaye gis nga bi yàlla joxee surgaam bi taw bi nangu na ko taw ma lay wan ni kokoot ku baax la waaye xool nga surga bi it bi ñu tawee ba taw bi bare te mu jóge ci ñaanam sa xalaat na ni ko yaa war a jiitu góor gi ne xale bi naa yegg ci wax leen sa daraja ñu moytu la mu ni ko ëpp naa def
mbokk yi ngeen baal na dafa am lu ma jagleeloon sëñ bi ma wax ko rek door a toogaat ñaan gu ma ko beral te duma ko wax kenn kulut moom sama am sëriñ Tuubaa dañuy wa fitnatin ak fitna wal balaa ak mbas wal araxe akuk lakk maa xaraxin akuk lakk wal baraxe akub melax maa saraxin akub sàcc wal kaddi akub coono yal na la ci yàlla musal man nag ma ne ko yal na la yàlla musal ci mboolem làmmiñ yi nga dëkkal Sénégal li illaa fi pël xorey seen naar illaa fi wolof rixite séeréer sitaa i lawbe wasay fi tukkulóor pël yi hëpp doo bambara rabban saak joolaa bayti tubaab lesi malgas ataam xaasinke min jooyin maa njaago wa amanum sara xulle min xaw fin soose suuratu koro boro neel amin ngeen may nu tuuti nag may ngeen may nu tuuti ngeen may nu tuuti nag ndax man daa am lu ma daan def te dama ci am njiglaay dama nawetaani wan moo tax ngeen ngeen maa gis sëñ Mansoor yal na fi yàlla saxal yal na ko yàlla saxal te saxal ko ñi ma mag man mii ëpp may at ak ñi nga xam ne ñoo ma ëpp at gis nañu ren loo xam ne lii mënees na cee takk ku am doom mën nga cee takk jëru nga di ko wutal kayitu juddu am nawet lanu ca xamoon juróom ñaar fukki guddi boo béyee suuna di nga ci mboolu juróom ñeent fukki guddi di nga yëg sa gerte xam nga nawetu ren ñaata la ñi jëkk a sébbulu weer lañu am ak ñaar fukki fan ak juróom ñett ñi mujj a sébbulu juróom fukki fan lañu am ak ñett ku nekk la nga bay nga lekk ci ay sëñ man so rek la ko yàlla def ab takkango wax ji nag du ci bari fu ma ko masaa dee gis ak fu ma ko masaa dee gis itam dinaa joxe sama addiya te junni lay doon dem ñibbi waaw ndax ginnaaw suraanoo bii junni la kursu ba bii junni làmb ja bii junni te doo ci gis bi sunaay ramaara yi xam nga ni dumaa ca ne te bu ñeel waaye man ci yonente bi nga joxe fukki dërëm danañ ma delloo juróom ñett teel wax ko na nga ko daan waxee rek.
wax ko rek na nga ko daan waxee.
Mbay Mansour.
sa ko xamee. billaahi. lu mu bari bari mbooloo ku la joxut ndaw tal mën nga koo xamee. dama ne la. yonent bi ku mu jaral. laa wax ku mu jaralul toogal ak la nga yor. ma dagg ko.
Cin ma rek.
am Cin ma rek.
manteer
moom murit la. maam Cheikh Ahmed Bamba la yaakaar. sopp Seydi Aboubacar si Mansour. ba bu ko déggee ba Kaolack day paas fekki ko. su ñëwee day génne junni wecc ko ko pari téeméer ni lañ ma tuddal turam. buñ ko joxee mu jox ma ba muy junni. da ci daan teg nag ni mbooloo mi ku ne dama jox téeméer ma jox ko abit loolu nag maa koy bañ léegi mag sëriñ bi xam nga lu tax xel dafa gaaw léegi waaye toog fële bakkaar ci naan ñoo ko déggoo ñoo ko déggoo moo tax ne na na na joxe addiyaam yóbbu cofeelam bàyyee mag gaa yi ku sa yaram daw da nga ñëw ku sa yaram dawul ba bët set nga ñibbeeg moom ok xam ngeen fu ma toll woon de ah aha kay sëriñ ba ni taalibe bi dinaa yegg ci dëkk ba siiwal sa maqaama ñu wattu la mu ne ko ëpp naa def man li ma yàlla may siiw lay bañ bu siiwee rek ma dem alaxira mu ne ko ëpp naa def de sëriñ bi ni ko kon damay dem alaxira ànd ak yow waaye foog nit ñi dégg ko dem ca dëkk ba annoncé taaliba ba ni ndeke yootee moo ma ëpp maqaama ci yàlla yëguma ko taw biig bi bu dul woon ak moom ci ñaanam gàcce am bi mu daanee rek waajee jublu penku tàllal loxoom ni yaa saaxiba sirri inna sirra qad zahara wala uridu xayaati baadama zahara xam nga lu mu wax dafa ni yàlla yaay borom mbóot mi yaa ko dencoon ci man te ni ma bu mu feeñ feeñ na kon nag bëggatuma dund gannaaw bis bi sama mbóot mi feeñ na daaneel ruuga rot ndeke am na ñu bëgg feeñ te buñ feeñee dem alaxira maa ngi nuyu ku fi nekk aju ci bépp tariqa gàmmu gi damaa bëgg ñu def ko séeru njaago séeru njaago xam ngeen lu ko tax a rafet wëñ yu bare yi te niroowul damaa bëgg ci kanam ñu waxal ma lu maam Cheikh Ahmed Bamba wax waxal ma lu maam Cheikh Saad bu wax waxal ma waa kër maam Limaamu Laay ma maafe ko ñu def ci ñànk tang ma seet ci ñeex ñu nga bëgg ñu nga bëgg nañ góorgóorlu ci lekk lu lew ci boobu laay daanee la dugg ci miim yëpp nañ góorgóorlu ci lekk lu lew xanaa yëguloo ni kuy lekk riba loo ñaan du nangu kuy lekk riba wala alali jaamur wala ngay fen wala ngay jëw wala ngay tasu bokk loo ñaan du nangu sayiduna muhammad dafa ni carax ci menn mbedd seen benn waay tàllal loxo yi jublu penku nen yaa rab yaa rab yaa rab yow suñu borom yow suñu borom yow suñu borom yonent bi ne ko anna yustajabu li zalika naka la la yàlla nangule ak nii nga mel mataamuka xaraam wa malbasuka xaraam wa mashrabuka xaraam wa qudiya bil xaraam li nga lekk daganul li nga naan daganul li nga sol daganul tilim teg ci taq ñaq yow na la yàlla nangule jógal dem yàlla du nangul ku mel nii nga reere riba añi riba gàddu kurus aw yoonu jàkk di nga rey nit ñeeg coow te sa soxla du faju ñu kay boo daanee la ma jëm fii ma jëm
قومي كتابا وسنة فآتنه عن منهج الأخ قد علم kay
الحاجة بينكما رجالة
kay
حرمنا البيع
قومي كتابا وسنة فآتنه عن منهج الأخ قد علم xaj abdoulaye dabbaax dama laa bëgg a firil tuuru dabbaax ndax nit ñi dañoo defee ni dañ naan daa baax dabbaax firiwul loolu dabbaax firiwul loolu cheikh haj malik si ca xam-xam ba ca may ga ca ngor ga ca njub ga ca leer ga dafa tëdd guddi sunu boroom communiqué ak moom mu gént Abdoul Aziz Dabbaax ni ko tudde ma doom 1904 Cheikh Hadji Abdoul Aziz gane àddina Abdoul Aziz Dabbaax boobu moo taalif téere bu ñuy wax librise boo rendee xar bëgg a jëriñoo der ba ca jamono yu jëkk ya da ngay wut mbànd ndaa def ca ndox dëbb nef nef xëpp ca boole ca der ba sëbëj ko ca bu amee ñetti fan boo ko yëlëbee dénd ko loolay dabbaax Abdoul Aziz Dabbaax boobu dénd der moo doon liggéeyam dabbaaxu mooy firi dénd der moo tax ci xalil nga gis mu naan ayuma ihabin dubiha faqad tahura même deru médd deru médd laa wax bu ñu rendiwul boo jëlee net lépp xëpp ca def ca no xooj ko ci mbànd mi ba mu yàbbi laat na loolu la dabbaax di firi kooka dénd der moo doon métteem moo tax Cheikh Hadji Abdoul Aziz bi mu fiy jógee xasiida bi mu def ci Serigne Mansour mu naan ko dabbaaxu xaafidu ahdikum man qad sumi bi mu allifi l ibrisi lil itqaani
يا دبار حافظكم من تقسمين بمعيث الإبريد للإتقان kay
عجب اسم الجيل حرمنا ربا قلبي كتابا وسنة kay فآتموه عن من ربنا خير.
هو حققت علل jërëjëf Mbaye jazakumullah xeer jazakumullah شهودك يوم الجمع يا خير منتصر محاميك يزيف خرجك سلل kay وأعمالكم يا أيها الناس حاسبوا فخمسكم ينفوكم ليلة الجبل jërëjëf منصور الطاعة آل الربا دوفا الموسى والدونه على أبواب الجبل والمال
amuloo morom de amuloo morom de la fudda foog wala challal yada wala birra man yachu ma daaneel lii damaa bëgg a dugg ci milieu bi gàmm ko gàmm gu gaaw fëkk cëppeel ko te bëgg cee wax lu bari te bëgg lépp di dëgg te bëgg lépp leer xaaji gooto dafa am góor gu baax a baax a baax xëy ni day aji màkk dem dem dem dem dox ak tànkam ba yóbbalam jeex xiif dab ko mar dab ko muy bëgg a dee ci yoon bi xanaa kooku dafa loru di ko xiif ak mar di bëgg a rey mu dox daanu ci benn toolu pom jàkkoon na xeelu siise waa kër maam alaaji mbaduy siise lañu ca Côte d'Ivoire waaw di njabootu Sidi Aboubacar bi de góor gi yam ci toolu pom kiis bi gand ko mu dagg ci benn doom lekk sàqa mi wanaasu naan ndox xelam dem ci ni day aji te ko aj màkka te lekk lu lewul aj ga du nangu te moomul pom bi xam nga lu ma ca tega ni ki garde tool bi wan ma borom tool bi ci garde tool bi jiitu góor gi topp ci mu yegg si ni ko kee moom tool bi mu nuyoog moom jàmm santeeg moom daaneel ni ko dama laa tooñ di la baalu mu ni ko loo ma def mu ni ko toolu pom bii ma romb xale bii ma indi di ko garde nee na yaa ko moom dagg naa ci benn doom lekk naa ko teg naa ci ndox mi ngi ci sama biir te moom ma ko te makka laa jëm te bëgg naa sama aj nangu borom tool bi ni ko jàkk xool ko xam ni kii dëkkul ci réew mi mu ni ko boo yoree xaalis di jënd jaayuma boo dee yelwaan saraxewuma booy ñaan mayewuma sama pom laa soxla ci pom bu ñu lekk ba noppi ajar doy taal kooku garaaw na kat pom bu ñu lekk ba naan ndox mu ne booy jënd man jaayuma sooy ñaan mayewuma booy yelwaan saraxewuma sama pom laa soxla sëñ bi kooku garaaw na de mu jaaxle te bëggul dem màkka ak biiru ribaam bëggul dem ak alal jàmm góor gi xool ko ba xam ni kii nitu yàlla la góor gi ne ko mën naa la baal sa sama pom bi nga lekk waaye benn charte la am am naa doom bu jigéen mu ngi ci kër gi lafañ la mënul dox dafa muuma du wax dafa tëx du dégg silmaxa la du gis soo d'accordee ci ma may la ko ma am occasion sama doom